ci a wax mooy erreur la mais li erreur boobu lan moo ko indi dafa mer c'est clair mais mer boobu dafa ëmb ragal aussi par rapport à la situation du pays. da koo dépassé. je l'ai dit à plusieurs reprises. Euh, <laughs> président Macky Sall <laughs> dafa nekk nit ki nga xam ni. dafa jox tous les moyens. Mhm. ay ministres. je l'ai partout. ay DG ak ñeneen ñu nga xam ne ay milliards la leen jox ñu détourné que mu jël ku dem teg ci pour les défendre loolu yëpp lu mu ko jural tey Sonko mi amul milliard amul dara mu koy xeex mënul fexe ba am ndam mais il est énervé il ñi mu gën a attaqué man dama ci ànd ak mooy mooy ñi mu àndal d'abord. Mhm. loolu bu mu ci jógee les quatre Casamance mais awul droit. ak loo ci munti dégg di traité nit d'escroc dafa ñaaw il faut pas que aussi bu président defee erreur du ñu ni que def nga erreur mais il faut lui dire que dafa def erreur parce que il est humain. peut-être qu'il est dé... peut-être qu'il est dépassé. Mhm. mais bu ñu défendre l'indéfendable man loolu laay bañ nañ ko wax ni que loolu bon il s'adresse à l'opposition en troisième lieu mais opposition bi euh, moo ñu créer benn problème fii. ça me donne de répondre à celui-ci qui dit que état de droit la ñu nekk mais état de droit Aliou Dembourou Sow li mu def kenn xoolu ko état de droit ñenn ñiy menacer Ousmane Sonko di wax lu nekk ñu ko set plainte yi nga xam ne Ousmane Sonko def na ko kenn instru ko loolu état de droit il y a beaucoup de choses yu ñu fi def yu nga xam ni dafa wane deux poids deux mesures loolu yépp mujjewul dul ñu yaakaar ni Ousmane Sonko dañ koy éliminer Diomaye taxaw loolu moo indi tous ces déboires la dama koy wax opposition bi nag leer na ñu di taal soxlawuñu di xuloo soxlawuñu di xeex ça c'est dépassé aujourd'hui li nga wax sànq la dañuy dem élection gagné dañuy dem pare parrainage sérieusement liggéey comme on il se doit pour que euh, bu élection yi ñëwee ñu gagné bu ko defee moom bee moom dalal xelam nous n'avons pas la prétention véritablement de faire des règlements de compte Ousmane Sonko li kat dal tey daf ko def ci ni suñu borom moo ko teg il n'en veut à personne c'est vous qui nous prenez comme des ennemis mais nous nu vous prenons comme des frères je l'ai partout ñun dañ leen jàppe parce que si yéen suñu ay rakk ñoo fa nekk ak su suñuy mag mhm. bu ngeen amul maturité wu di tëj ay nit ba di noonoo ci diggante sénégalais yi ñun dinañ am maturité wu invité leen bés bu ñu jëlee réew mi ngeen ñëw parce que le président Macky Sall a fait plusieurs échecs et moi je l'appelle l'apprentissage par l'échec foofu mu échoué mën na dina ñëw nekk suñu conseil au lieu muy dem fële nga xam ne France la donc Sénégal dañ ko soxla xam nga sànq fa la yaa ngi wax non non non ah, bàyyi ko mu yegg nii après ma jox la nga nga jeexal man sama wax du bari. Mhm. je crois que dama koy tënk mu leer nañ il est affolé mais ce n'est pas la peine de s'affoler devant Diomaye devant les autres devant la stratégie de Pastef ils sont complètement désemparés te loolu moo feeñ ci président la République mais naka lañ mën a comprendre que hmm. ne y même pas un mois Habib Sy ak Aïda Mbodj nañu euh, Ousmane Sonko il est voilà dans une situation critique bu ñu leen woowee ne leen kii du leen bett démb ku mel ne Guimanes yi xawul changer li dal Ousmane Sonko yëpp mooy mu nekk grève de la fin bu ko defee loolu joué ci yaramam mais su reprendre dafay retrouver la forme Guy Marius Sagna da ko wax ak Cheikh Tidiane ak ñett mais ñun xam nañ ci lépp nous avons toutes les informations. il était en grève de la faim yàggul non mais il reprend des forces parce que commencé na lekk. Mm-hmm. ça veut dire que amul benn feebar bu ko gàllankoor. d'accord et là on vous parce que dernièrement la ñu jot ay infos c'était voilà lu doon c'était catastrophique c'est vrai en profond donc voilà c'était assez je crois que même wax nañ ci mhm. avocats wax nañ donc c'est une chose vraie c'est alarmant en fait mais maintenant il reprend les forces alhamdoulilah merci beaucoup temps bi ñu dégloon